yaakaar naa ne xalif bi eh, ni mu waxee ndax xalif baa ngi toog porte parole am nee na li may wax ci làmmiñam la jóge xam kon kooku amul na table ne sëriñ bi mbégteem la wane kontaanteem la wane eh, li nga xam ne moom la président Macky jëf ci dëkk bi tamit jëfal ko yoonu murit bépp sëriñ bi daf ko sara daf ko wax wax assainissement bi mu fi def wax hôpital bu bees bi ñuy tabax wax autoroute Ila Touba ne président Maxal denk ko Serigne Touba wa mais serigne bi ku ñu dénk ku ñu dénk Serigne Touba sa xel wal naa dal kon nag ñun suñu xel euh, dal na président Sall inshallah lim doon sàkk si Touba euh amna ko ba paré Parce que là, il ne faut pas être affirmatif. Parce que nous allons faire des tests. Il faut que ces textes, tests soient vraiment de conformité et conformes pour pouvoir quand même débuter une circulation commerciale. Monsieur le ministre, sur l'absence du train au magasin cette année, il y a eu beaucoup de critiques. Euh, pourquoi vous avez pris cette décision On a répété, répété, conseil de sécurité. Quand même, il faut assurer à la population c'est le service qui compte, le service qu'on assure à la population. Donc un train, une voiture, c'est pas important. Ça c'est le, contenu. Ce qui est important, c'est assurer une mobilité. Une mobilité sécuritaire, une mobilité confortable, une, sécurité, une mobilité capacitaire à la population pour qu'ils puissent venir faire le, petit dans les règles de l'art et dans la sécurité. Donc ce c'était pas sécuritaire parce que quand même il y a d'une dégradation de voie qui est, vraiment importante. Il faudrait de gros moyens pour pouvoir faire ça. le temps nécessaire qui restait au Magal ne suffisait pas pour faire, pour faire ces réparations. On préfère les réparer et reprendre le transport ferroviaire vers Cuba et de manière plus périodique quand même ne pas attendre simplement le Magal de Touba, on, essaiera de faire euh, un transport sur Touba chaque vendredi, chaque vendredi au moins, avec le gros projet qu'on a, parce qu'actuellement nous avons 500 milliards pour réhabiliter le Dakar Bamako, le projet mythique intégrateur entre les deux pays, nous avons 500 milliards pour réhabiliter à neuf pour que ce chemin de fer centenaire puisse revivre encore 100 ans. Beaucoup de gens,

dinañ def au moins chaque vendredi ñi am bu ñu amee demande de transport bu doy train bi di ñëw Touba chaque vendredi train bi ñëw Touba comme ni muy demee Tivaouane chaque jour loolu la ñu bëgg mais lu tax dawaluñ ko ren lépp pour bëgg lu wóor pour bëgg nit ñi ñëw ak jàmm dem ak jàmm ci sécurité ba ñu am loru parce que vraiment les risques d'accident étaient là am boo nee risque mën na am comme bañ na mën a am comme yaa a un risque rek i faut pas le prendre parce que les gens ci bateau Joola mi ngi fi koy regretter bu amee dara état responsable nous sommes un état responsable quand une décision on doit la prendre dañ koy assumer toute la responsabilité qu'il faut Nous ñu bàyyi train bi muy daw te wóoru rek tax ñu ñu train donc nous on est un état responsable on n'est pas comme l'ancien régime bi le bateau n'était pas apte pour les Ziguinchor ñu Nous ko mu dem 1800 personnes loolu moo tax ce qui est important mooy nit ñi di mën dem ak dikk sans problème c'est pas très wala oto wala qui moo important ma important nga def ay solution de mobilité pour nit ñi di mën a déplacer wu di dem ak di dikk loolu moo important. jom ak fit kon jàpp naa ne ah sama xel day dal bu baax a ci li président de la république sant mu tabax jikko yi ah këri diine yi.

loolu nag dafa am lu muy tekki président de la république réew mi rek ko soxal moom ci boppam faloom sax soxalu ko waaye réew mi na tànn kenn ku muy fal waaye na ko tànn ci jàmm ak ci sedd ak salaam loolu nag mooy Sénégal loolu nag bu jógee ca tuuba ñu ñaanal ñu ko gëm nañ ne sëñ bi ba mu ko waxee ne boole naa la ak Serigne Touba ci boppam bàyyi naa la ak Serigne Touba ci boppam ñun gëm nañ ne loolu dafa am lu bëree bëri lu muy tekki te ñun ab ñi nga xamante ne ay taalibe lañ xam nañ bu baax a baax. monsieur euh, laaj bi mu jël mel ni sànq jot na ñëw en tant que ministre ak tamit ñëw en tant que taalibe euh, nan ngay waajalee màggal en tant que taalibe. ah comme taalibe yëpp rek comme taalibe yëpp am na taalibe yoo xamante ne ñoom ñoo nekk am na taalibe yoo xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci njàngum xasaayit am na taalibe yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci lii nga xamante ne tey mooy da ci ci ci ci ci ci daara yi ñoo ñoo nekk ci tool yi ñun nag dafa am foo xamante ne xëy na mën nañu fa féete foofu rek lañuy ñuy féete puisque nag kenn waruñoo ëppale ca la nga xamante ne moom mooy lii nga xamante ne moom mooy màggal ab taalibi daal fii nga xamante ne ab Tuuba jàpp naa ne mënoo fee indi dara loo xamante ne mën naa fës da mën a ñëw rek am loo fi jëlee yóbbu si sa njaboot yóbbu si sa waa kër ñëw jël si nag lañ def si pour yóbbu puisque jàpp nañ ne ab taalibi mënul defar fii dara Serigne Touba li mu soxla woon yëpp defaral na ko boppam. ku ñu denk Serigne Touba nag li nga bëgg di ko am parce que wax ji li muy niñ koy tënkee yëpp mooy président Macky Sall wax na taxawaayu Serigne Touba ci liggéeyal l'islam mais wax taxawaayam it ci jàpp ci li nga xam moom lañuy def ci Touba ba pare en tant que talibé di nit te di dem ci ay jongante mu tàllal ko ay loxoom pour yàlla delloo ko nguur gi sëñ Mountakha sant ko gërëm ko won ko nag lépp li mu doon def xam na ko li muy liggéey xam na ko waaye it jël na ko dénk ko Serigne Touba moo tax suñu xel daal xalif bi reconnaître liggéey bi rek ñun talibé yi xam nañu ne loolu la parce que nag jóge dakaar ñëw fii ci Touba ci benn waxtu ak ñaar fukki minute ak juróom gën caa bari ku mu doyul dara dootu la doy wax nañ fi assainissement wax nañ fi ay tali waaye ni ma xamee président Macky Sall lépp lu mu def ci Touba rek bu ko jégee day xalaataat leneen luy yokk jëmm Touba ak liggéey bi Serigne Touba bëgg fii ci loolu lay jublu parce que taalibe lu mu defal sëriñam taalibe lu mu defal gox bi mu nga xamante ne moom la gëm daf koy xeeb day jàll ci leneen jërëjëf monsieur le ministre. jërëjëf. Serigne Mouhamadul ko tontu te fu mu daanale dafa lim ay réalisation yu yoo xam ni président de la république euh, def na ko fii ci Touba mu nekk ci ay euh, ndigalu xalif fii ak sëriñ yi mu nekk aussi ci ndigalu euh, mën nañu wax Serigne Touba. Euh, président de la république Macky mu jël ndigal yooyu mu jël ko def ko mission wu boppam te euh, mënoon nañu wax ñun ak daw APR wax wala ñuy jàppale président nekk di lim euh, liggéey bu rëy boobu bu def mais du am importance bu mu am léegi bu nekkee ni koo xame ni moom mooy Serigne Mouhamadul Bachir Mbacké moo yëkkati kàddu wax taxawaayu président ak lu mu defar Touba. donc euh, mu rëy ci ñun ñëpp di ñaan ñëpp ci Séné bépp sénégalais fu mu mënta doon ci àdduna bi nda ko yàlla may xel ak mu mën a xool gis liggéeyu président Macky Sall nekk di def te def ko fu nekk def ko aussi ci fii ci biir Touba ñu ñaan aussi lan na yàlla yóbbu Touba si kaw yóbbu yoonu murit ci kaw yóbbu bépp jullit àdduna bi si kaw jërë ngeen waaw li ñuy njëkk a fàtte rek mooy dañ fee nekk ndax màggal te màggal bés la boo xamante ni Serigne Touba moo ko waral waaye bés la boo xamante ni léegi bés la pour Sénégal waaye bés la pour Afrique bés la pour monde bi yëpp bés bu sell la màggal gi moo tax bi ñu ñëwee fii liñ fi dégg am na solo dégg nañu li nga xamante ni président wax na ko fii yëkkati ko sàkku ñaan. Nous ñu le Sénégal nous pour ñu dem élection au jàmm Le porte parole au nom du Khalif, le am parce que il temps de façon rigoureuse le bilan des réalisations du président de la République Macky Sall à Touba wax na comme infrastructure président def na rafetlu nako ko nak nag dañ ko rafetlu Touba mo ci gagner waaye senegal tam mo ci gagner waaw Ila Touba nek na ben euh, infrastructure bo xamanteni mën nañu wax ne xaaroon nañ ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg parce que sank Serigne Bass fatali nako bu ñëk ba ku doon ñëw di magal si magal dafa yàgg metti doon nañu jël ay fas tok bi jaag ñu jël ay auto jël sahar jël sahar waye gis nañ ne ñëw bi da doon metti sëñ Touba nag moo ko jar waaye Ila Touba bi day yombal léegi màggal su fekkente ne mën nga jógee Dakar une heure de temps ak lu toll tuuti nga agsi Touba loolu dañ koy dañ koy santé président de la République Macky Sall te dañu jàpp ne contribution bu am solo la ci histoire màggal ci Sénégal. waa xanaa ñuy sant yàlla rek di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu ak di def. cëslaay euh, kàddu xalif bi euh, xalif général de Mouride ñaanal na président de la république rafet lu liggéeyam nga loolu dal na xel mi ngi liggéey euh, am ñu wax jëm ni waaye xalif bi nga xam ne dëgg rek ak yàlla rek moo ko tax a jóg mu joxe firnde liggéey bi muy liggéeyal Sénégal ginnaaw Touba sax njaanal ko ñun suñu xel dal na daf ñuy wax moom faral di wax ndeysaan xam nga moom du xuloo du xeex du tontu yàlla moo ko moo ko bindee noonu euh, man dama koy xool ba mu yàgg ma ma yéemu moom daf ne nañuy nañu liggéey rek te bañ a wax yàlla mooy fay te yàlla na ko yàlla fayal li muy liggéeyal Sénégal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam